gëna fess ci bop xibaar yi dañu koy doré ak ñi ñuy wowe ay rabatteur di ay ndaw yu nekk fële ci buntu service des mines bu yarax di fa daan seeni doole. viol ak pédophilie ci ndaw ñi nekk lu lëmbe réew mi ci ay bés yu ñu génn bu ci gën a ràññeeku nekk jéeye oustaz wakam bi ñii di ay jàngalekatu daara di yeewoo fii ci yaraax àddunañu ci. bu ñu jógee foofu wax ci embouteillage bi lëmbee tali yarax bi di juural ay jafe-jafe sofooru tata ak car comme saa su nekk ñu jeexale ko ak wàllum tàggat yaram di ci ànd ak jéey production ngir wax wàllum làmb Saliou lu tudd ñu koy wooye Mame ak kii di Dieng Sall ñu gën koo xam ci turu directeur ay rabatteur lañu fii ci buntu service des mil bu yaraax di fi daan seen doole ba noppi di jàppale borom oto yi ci lu ñeel visite technique. depuis 2008 maa ngi fi quoi damay def comme électricité. lele léeg plaque yi buñ yakoy bala nga dugg ñun dañ la koy wax ñun yag nañ ci quoi bala nga dugg ci technique pan bo xam rek ñun dañ la koy wax boo mënee taxaw ñu débar ko même sac bi ma yoni sama ginaaw lépp ay lampe la lool rek moy fi suñu métier quoi bon ñu fi leneen ñun bon dañuy ñëw pour taxale ñi ay électricien lañ ñi ay to plaque lañ ñi ay débar plein saa yi di nga dugg ñu dàq la plein genn bo taxawé fi gaay taxaw fi le temps kay dem sa mécanicien ñu defaral la ko boo mënee jëlaat rendez-vous nga mëna a légui légui ak triangle rouge yi dañ koy jaay tamit quoi bala nga dugg da ngay am deux triangle ak benn pompe extincteur avant ngay dugg ñun ñoo la koy jaay boko amul quoi sino bo duggé boko amul bo demee dañ lay dàq té buñ la dàqee bon da ngay perte bu dé particulier bu fayoon 9000 la da nga koy perte dem wat xam nga rendez-vous ñew payat yenen 3500 kon ñun am nañ fi dimbal quoi yenn zone yu bari lu mat 40 personnes 50 personnes ñi ngi fi jot seen wërsëg yor seen kër am fi soxna yor seen kër def ci lepp quoi vraiment té liggéey rek mo leen tax jog daan seen doolé dun sakki dun fen dun tux dun nan dana la accueillir dalal la waxtaan ak yow ba nga comprendre li xew ci biir ba boo duggee li nga bëgg sa aaj dana faju daal vraiment ku la yaatal ci bërëmam pour nga fay liggéey da ngay da pour nga mën fa nekk da ngay doxee doxee ñu kilifa waaw loolu nag ñun dañ leen koy war ñun si buntu bi ñun dañ leen di wan ne leen xam nga euh, ay responsable lan danoo bàyyi njaboot ginnaaw quoi kon fépp fu ñu daane suñu doole rek boo ñu fekkee rek ñuy respecté danan danan comportement comportement boo xam si ne boo ñu fekkee rek vraiment respecté ñu daal toll si lu ëpp juróom fukki ndaw ak seeni qualification wàllum électricité ak parallélisme waaye yenn saay du ñàkk ñuy am ay réeroo seen diggante ak borom oto yi. bon man débouté radiateur mooy sama métier d'office man moom laa doon liggéey quoi mais depuis 2008 nag ba léegi maa ngi fii maa ngi jóg fii maa ngi dofa fii électrique comme genre électricité laay def quoi parce que boo xoolee sac bi lépp ay lampe la. dèjà am na ñoo xam ci ne am nan qualifié na seen garage yi danoo génn mais comme dëkk bi fi mu toll léeg-léeg nga ñëw fii nii. indaale sa métier muy paralysement muy électricien xam nga muy plaque mu tout quoi yaa a tout euh, façon métier daal bu nekk nit indaale na ko fi daal nekk fii en fait kon loolu loolu euh, centre bi attan na ko vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi si ñu ngi si jàppale ñoom it ñu si xel diñ si diñ si diñ si dimbali daal vraiment xam nga baay ñu daan suñu wërsëg daal ñu ngi lekk suñu wërsëg kenn ko ne ñoomit amuñu si ben problème si ñun ñun it amu si ñom ben problème dal, vraiment jafé jafé mom xamna né bari ne bari na quoi vraiment xam nga des fois nga daje client bu comprendreul xam nga en fait euh, fofu day xawam am jafé pour mu comprendre pour nga détail ak mom bam comprendre du xaw du yom vraiment mais nak sante yalla yo nak yow yow mi xam ci yow ya soxla client bi dafa fekk ci yow yaay yaay mature quoi yaay mat ba mëna waxtaan ak mom ba mëna comprendre côté bobu rek la jafé jafé nek quoi mais en fait euh, pour centre bi ci biir ak ñun non amuñu ben problème wax yalla fan ñi ñu wéssu ñi di sàkku xale yi maanaam Nek nekk na lu lëmb réew mi bi ci mujj nekk ab sëriñu daara bu doon sàkku ay taalibeem ci wakaam mu nekk lu askan wi di naqarlu ba tax imam ahmadou si nekk professeur arab bi ci yaraax di si àddu jëye bu boobu am ci daara ji gis bi ma ci am rek boo ci ñaari volet la ndax bari na ñoo xamante ni ngi dañuy ubbi daara te nekkul si ñoom parce que

boo xam ne day def daara ça veut dire que kon du ko mbubboo woon man foofu laay waxee ci côté boobu. phénomène ñu mel nii mun naa ne bon bu dalee ci ndongo daara aussi ñoom duñ ko bàyyi mu set mais boo xoolee aussi am na ñu jiitu ñu nga xamante ni ñii nekkuñu woon ay ndongo daara yàgg nañ ko def yaa ngi dégg ci école yi mais dañ ko doon nëbbal nëbbal yaa ngi dégg di ko dawal sutura seen biir parce que affaire état la ñoom seen biir ñoom ñoo ko moom. mais lu jëm ci daaru aussi boo defee benn tâche wala nga def benn flagrant wala nga def lu nga xamante ni aussi jarul siiwal mais dangay gis ni dañ ci profité waaye loolu yëpp nag lu ko waral aussi ñi nga xamante ni dañuy taxaw di xeex lislaam moo tax du ñu may gars yi benn sens bu nga xamante ni lii mën na leen ko baal moo tax action bu ndaw bu nekk ba amee rek dañ koy yaatal ci àdduna bi loolu yëpp nag aussi pour euh, xeex lislaam xew-xew yi xew ci jamono ji njëkk mooy ñu xam ne borom xam-xam moom yëmut ak lenn yéen alquran dafa wax ne yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat yàlla moo yëkkati ña nga xam ne gëm nañ yàlla te sàkku xam-xam moo leen yëkkati ci ña nga xamante ni amuñu xam-xam te jàngalekat gu mag bi moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon jàpp na ne ku jóg rek pour bëgg jàngale li jitu xamal ne sa sëriñ moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi nak kenn ku nekk xam na ne dafa ñëwoon pour motali ñëwar mottali jikko yi ndax njàng soo xoolee lépp daanaka jikko la dañoo war a bàyyi xel ci ñi mbubboo sëriñ ngir nasaxal ji diine islaam si beneen wàll xoolaat bu baax modernisation daara yi ba ci internat yi ba noppi di ñaax waajur yi ñu gën a nemmeeku seen i doom ginnaaw ba ñu leen jébbalee sëriñ yi bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey pédophile am na fépp dama koy reconnaître ne am ci daara yi parce que man damay dama leen di fréquenter man damay jàngale voilà 33 ans je suis au euh, au service de l'enseignement enseignement arabe yaa ngi dégg ñi may seqal ak ñoom dama leen di fustiger di leen wax samay raaj xëy na péché yu gën a ndaw yi sax damay dem ci wax ak ñoom balaa ma àgg ci kaw problème bi nag mooy parfois dañ leen di jox trop de crédit xam nga population bi damay wax dañu jul seen matikaay bu ñu gisee ni kii oustaz la rek alors voilà ils sont aveugles mais je crois que précaution yàlla moo ko jëkk joxee

gis nga ma mokkal baqara ba naas di tari lolou du référence déedéet wala goudal sa kim yaa ngi wala goudal kala goudal kurus c'est pas ça l'islam nit ñi nag ba léegi dañoo wax dañoo xawa euh, delu ginaaw ci côté bobu bu buñ la gisee commencé tag xala la wax arab yi leer nañ rek ñu jox la entière confiance. lu amul organisation toujours dafa am erreur état bi nu muy organiser comme par exemple école yi muy jaar yoon. ñu suivre leen suivre de près ñu suivre leen suivre ba nga xamante ni c'est-à-dire yenn erreur yi yenn du ci am yaa ngi dégg bu fekkoon état bi moom ci boppam nangu na taxaw organiser daara yi comme nu mu waree yaa ngi dégg du saytu daara yi ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo jël seen doom di ko yóbbu si sëriñ yi ñuy ñëw di saytu seen doom di xool seen alio fu mu toll di xool seen tarbe yi fu mu toll di xool kii nga xamante ni moom la ñu dénk seen doom yaa ngi dégg loolu am solo la aussi dafa am ay danger yu nga xamante ni mu ngi ci gis nga internat li naan internat internat baax na trop mais internat c'est pas n'importe qui moko wara def lutax parce que internat dafa nek mbir bu nga xamanteni dafa sensible su fekkente ni yow da ngay yar xalé nga ne xalé duñu du ñu ñibbi lu dul julli korité wala julli tabaski goor ñu fële jigen ñu fële yaa ngi dégg te amul benn kilifa bu nga xamante ni guddi gi dina taxaw di maîtriser xale di suivre xale yi yooyu mun na fa juddlu loolu mel noonu moo tax mag ñi dañ doon wax ni xale bi na jàngi ci daara ji su wàccee ñibbi si si këram lu tax sëriñ bi bu defee ci moom lu muy def ba pare su ñibbisee si kër waajuram yi waajur yi mun a suivre xale bi de près xool ndax qualité yu nga xamante ni moom lañuy ñuy espérer sëriñ bi def na ko ci xale bi ndax def na ko wala def ko si mais boo jëlee sa doom nga yóbbu ko si internat wala nga yóbbu ko si daara fàtte sa doom doo ko suivre de près loolu aussi d' accord même bu fekkee sëriñ daara bi am na erreur bu mu ci def waaye tamit parents yi tamit am na erreur bu nga xamante ni def nañ ko si jàngale alquran yombut jàng naa jàngale naa yombut dañoo war xool ñiy jàngale ñan lañu yan capacité lañ am ba war a ubbi daara wala ba war a yor daara mbaa ba war a toog di jàngal ay xale ndax am nañu xam-xam bi ñu ne ah am nañu ñu teg à côté ndax jikko gi am na fa ñu ne ah jikko bi am na ñu teg ko su fekkee ne amut ñu tàggat leen day jaral ñu def ay séminaire yoo xamante ne dañuy tàggat jàngalekat yi ba noppi xam ñooy ñan ñu door leen dox daara yi ñu jàngale comme ci fii ci dakaar ni ñu ko xamee kon xew-xew yu mel nii su fekkee ne gis nga ko mooy ku nekk rek beru ci ruqam kenn ku nekk ut ruqam beru ci ku ne beru ci ruqam boobaa xew-xew yu mel nii mën naa euh, accident yu mel nii mën naa am. daa mètre dong la def xam nga lan moo ko andi rond yi ak camion yi. chauffeur yi sonn nañ borom oto yi sonn nañ ndax ay jenn panne fu ne chaque jour. ah yaraax métti na torop loolu nekk kàddu ak jafe-jafe mboole mu chauffeur ak riverain yuy jaar fii ci route nationale bi di tali yaraax dara waralu ko lu dul embouteillage bu méttee métti ñeel bi la yoon. suba ba ngoon ñu ngi ci amuñu fu ñu jaar da ngay teggi fu ne ngay jaar to xam nga tata amul warul teggi mais fu ne la ñuy jaar client yi sonn nañ oto yi sonn nañ mun gis nga da nga maa fekk may changé panneau nii mënuñoo am ay yu baax ndax teggi bi fu ne nga jaar fa. Yaraax da ngay jógee Petersen midi yéeg Guédiawaye ay 3 heures xam nga loolu métti na. instant ñun ñun këwul karal bi ñu nga xam si ñun transport dañuy wes ku ñu ci dimbali ñun ñu jël ñun wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg dee ci am bi gaañ wax dëgg yàlla ku ñu dimbali yaatal dafa na ko deux ans yaat ñu jël ñun sant yàlla ñooy bëgg a dee ci am bi gaañ man sëwër car rapide la Mamadou Touré dem ba ci yàgg paan kenn du xamati foo jëm ñii dañuy dem ba la fee dañuy jël client yi delloo leen seen paas ndax ñàkk pexe wàññeeku waat dellu suwaat yaraax mu ne yabaat dem lii moom sonal nañu métti na lool lool lool lool tali war nañ koo yaatal ah camion yi te bu ñu mënoon dimbali ñu jox ñu defal leen heure loolu dinañu arrangé ñun sëbaru transport yi xaw nañoo dee versement sax dañ ne balaa fee dañu sonn duñ ko am day dem ci expliqué borom bato sëbaru yi borom yi sax dañu am compréhension ne waa joxe leen li ngeen yor rek garaaw xam nañ nu mu demee. comment exemple amagul benn état boo xam ni affronté na affaire bi. par exemple euh, euh, euh, la route de Yarar d'avoir ko deux fois une voie ou deux fois deux voies parce que en général blocage de circulation Dakar en général blocage circulation Dakar c'est Yarar ak Pikine ba rond-point bon il y a lu aussi greffé wu ci le service des mines service des transports terrestres pour que bi de ñëw délocaliser ko à Anne donc mu nek nak euh, euh, mu gëna a indi embouteillage bu mag bo xamni par exemple pour nga quitter le pont de Anne wala Castor pont de Anne pour rallier Capa mais c'est infernal. ginnaaw jafé jafé yu muy jur mu mëna a nekk ab perte ci walum kom kom ñi addu ñëpp di ñu xamal dara warul ko luddul camion gros porteur yi service technique bi ak li di liggéey yu téwa antu ba pare di sàkku ab yaatal tali ci ñaari voies. embouteillage kenn mënu la wax lan la parce que instant bi nii xool nga ko bi yaa ngi koy gis nii fii la commencé ba Espoir te doo gis oto bu paane loolooy problème bi fii yara bu camion paane ci digg yoon bi kenn du jaal amul déviation doy na waar daal rond point yi ak camion yi camion yi dong ñoo ñu bi daal xanaa camion yu bari ak tali bu baaxul rek moo ko waral mais du leneen changeur an bi c'est bien pensé ni ko ni ko ko mais c'est-à-dire man mon problème c'est quoi échangeur u Hann bi boo jógee euh, euh, la route de Hann pour dem à Dakar par exemple war nga mën échangeur bi rek wàcc à droite dem à Dakar yéeg échangeur bi wàcc à gauche pour dem à Pikine Rufisque ainsi de suite ainsi de suite et on voit que ni benn voie rek la boo yéegee pont bi tu ne peux que tourner à gauche Mais lui, luy jëm Pikine demaat ba ci rond point bi ci kaw retourner waat et la route de Yarach est fréquentée par des, gros porteurs, les camions qui sortent du port. Même pour moi, c'est presque 2 km pour dem pour mon ko là tu es obligé de dem ci autoroute nga garer sa auto et c'est pas prudent donc vraiment ça ça, ça n'arrange pas les populations de Han. ça c'est bien que moi je sais que ni par exemple j'habite pas ici mais je sais que les populations de de souffrent énormément énormément énormément et que, par exemple, l'État devrait sa copie, revoir sa copie, vraiment pour euh, désengorger la, la, la, la, situation, parce que ça, c'est une bombe à, retardement. Tagat yaram dooree ko ak lam wax ci journée bu production di amal tay dimanche feul ci arène nationale ci diggante bébé julde écrit Cheikh Mbaba ak écrit yoof écurie yoof mbolo muy deuxième édition drapeau sargal Aly animatrice à la Sen TV. di drapeau Aliouma Ndiol diggante xale xale caatu yow ak bébé julde ak bébé julde ah ñu jël ah, jël ki nga xam ni mooy Ama Malika ak ak xale bi nga xam ne mooy Tmax di combat spécial bi di drapeau Waadane Ndiaye Rose ñu jot ñu jot ci bàcc drapeau bi di dox ci diggante xale bi nga xam ne mooy Ndiaye ak toujours problème dig dangor su njaay njaay ba gis baax loolu drapeau buur faadal faadal ñu gën ko xam ci buur ci buur faadal faadal dakar dakar buzz buñ ko jógee nag tek nañ ci leen ci combat préliminaire day combat yu yu extraordinaire xale yu mën masha allah yoo daal daal am nañu yaakaar ni lama ji lama ji kattanu yàlla yàlla mel ni mel ni war am nañ am nañ ay suivre yu war a ñëw yu bari ay américain américain américain yu bari ah xam ne war nañu ñëw vraiment vraiment rendez-vous la incha allah dañu pare daal daal dem maximum ci làmb ci ok ok léegi gis nañ jiyee bu mu jot mu jot làmb ci làmb ci feneen arène nationale yéen tey ci wàllu organisation est-ce que jël ngeen matuwaay yëpp jëye bi jëye bi amul amul ci biir làmb làmb ci kaw fenn fenn jëye bi jëye bi am ci biir sant bi lu kenn kenn mënul xaar la c'est-à-dire aduna aduna ci biir liggéey liggéey lu ne mën na arrivé mën na ñëw mën na ñëw mais du xam xam programme la wala mbër la woon loolu yàgg na am ci la yàgg na yàgg na am mais dafay dafay ñuy ñaan yàlla dañuy ànd ànd ak mbër yi ñu bàyyi bàyyi xel di respecté bëri bëri aussi ñu xam ne xam ne jërëm yi or rek or rek la sport bu ñu bu leen doon leen doon sport su bu dee bu dee bopp rek day day xajam donc loolu loolu jël jël jël ay matukaayam te commande ko ko Dakar ñëw na ñëw na jël jël bi ah ah am na lu mu préparé donc. ba ci entrée yi léegi léegi duggee benn benn tri ñaari ñaari nit ñi boole moo ci entrée bu leen koy dugg. ñëpp ñëpp ñu ngi jaar jaar boo yéegee boo yéegee fële fële fële nga dugg. mais dañuy dañuy dañuy dañuy benn benn problème bu ci am. jël nañ ci ay mesures de sécurité ba nga xam ne xam ni. wax dëgg yàlla yàlla ku fa ñëw te ñëw te ci état bi loo xam ne xam ne ku ko xam. jàppale sa sa bopp. foo nekk caméra yaa ngi tiim donc kon kon nañu xoolaat suñu bopp yar suñu bopp. ndax ñu naan non non ñu ngi liggéey hôpital am am def def ay Sénégalais rek muy Chine Chine muy Pape Ndao moom foo mën a àdduna àdduna lépp lépp foo mën a nekk dañu avancé donc stade bu toll nii ñun ñoo war a ñoo war a yóbbu yóbbu yóbbu nañu donc lii daal lii daal la ma la ci wax yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax